wax dafa jur te yiw lay jur waaw moo tax nga xam ne ñoo li ñoo culture psychique ñoom docteur Pochet ca la bokk ñoom docteur Karel ñële ca la ñu bokk ñoom dañu am lu ñu daan wax